بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الأمر وخير ما بعده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 ñaan jàmm ci réew mi ak ko wër démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci théorie ak pratique théorie pratique yi nga xam ne ma ne lekk léeg nga gis ñu théorie théorie théorie ba di xeex ca yëf ya ma misaal ci démb xale yooyu doon bay demoon buleel fekki woon Mamadou Badiane mu dogal leen tool ñu cotiser ku nekk cinquante mille mu dib xaalis ñu rëdd projet yi ba agsi ci bu oto bi ñëwee clando bi nuñ koy def jenn waa ji moom tàmbalee dawal kenn ko dóor ko ne ko yaa ngi tàngal moteur bi xeex ba tàmbali xeex ba tabarkal la ñen ñi tam def seen association daje nak assemblée générale boo ko wutalu tur ñi ne dañ koy tuddé la ilaha illallah ñi ne déedéet dañ koy tuddé allahu akbar xex ba tambali xex ba tabarkal walu théorie pratique daf ko gëna sakkan théorie nak moy jitu waye bu ca kep euh dara lu sampe gone day jema def dara suko wax jë suko ko ba nopi mu jëmmal ko gis nga ñiy rëdd plan yi buñ yemon ci plan kep ab sedd ray ak yu ni demee waaye dañ la rëddal plan nga dem wuti ciment ak béton fer di jema samp ba plan biñ la joxoon sampé nga do dugg ci biir mu nga ngoog euh, théoriciens yi léeg-léeg ñu beru seen ruq ñoom tam nekk fa rek euh, li munta am ci pénc mi ñoom ñu koy amal ca ruq bañ toog loola jural leen fashal fi taxyiril waaqi ba li xew ci pénc mi duñ ci mën dara ndax ñoom li nga xam ne mooy diraasa te mooy étudier étudier ba gis ne lii nii la ñu jóg nag ne ay ca kon nañ ko def nii loolu moo dul am léeg lekk waaye fi ne yàllaa ngi jàngal nit ci lii ma bint bi ma toll ne ku ma bëgg a xam xoolal li ngay lekk motax ko bëgg xam théorique pratique xoolal lekk fal yansuru insanu ila taami ila taami mu ne nit na xool ila taami ci ci li mu ndékkee ila taami ci li mu añee ila taami ci la mu reere fa mu tàmbalee anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al arda shaqa fa ambatna fiha habba waaw laay sunu góor gu alxaaji màggat jéey bu nawet bi ñëwaan ndeysaan mu bindal ko tool ba seetet mu bindal ko tool ba <laughs> am solo la góor gi alxaaji màggat jéey waaw mu bindal ko tool ba <laughs> ndeysaan daal di may jox jiw bi ne ma yenul mu ne ma yenul waaw dal di may jox ne bant ni ma sexal waaw ni ma bo demee ci garaf sangam nga taaj ko fa fi ba ba ngay ag ci fa nga koy taaj nak bul gestu ak yenen yu ci bokkon te ko wax ci kaw rahmatullahi ali gor gi alhaji magal jéey seet motax bu bayan ndeysaan du jeexal dara motax daw daw nu wani bu ñu ñëwé rek tabarkàlla def ci sax mi bokk koog moom te moom bëggutoon xaaliss bëggu koon de ne kon day jaay gerte ga def ci posam ne leen nenu dox leen yalwaani mi wa kaw gi def fasiyu yu jigéen yi waaw amin mbeng jaay mi wa kaw gi def fasiyu yi xamna war war nañ ci waxtaan fasiyu jigéen lu nu koy bërgal bàyyi ko ci mbooy gi muy taxawal di lum lekk te bi nawet bi jotee moo ko fasu góor yoo ko bay ñu jël ngooñ ma indi Dakar waaw loolu day fas yu jigéen yi xam naa eh, bis bu ñu àggee ci journée nationale hmm, fas yu jigéen <laughs> ñoo ab laay bay peex daañ ci wax waaye daal eh, wàllu def defar pénc mi eh, ay théorie rek du ko du ko du ko du ko du ko du ko def rawatina kuy théorie théoricien boo xam ne xamul lu mu péncam waaw nit nit léeg-léeg itam muy wax akum péncam te xamutum péncam waaw loolu sunu mag ñi yàlla na yàlla fayal ñu leen loolu lañ rawe ñu bari dañoo xamoon seenum pénc waaw nazariya jaahila bil waaqi théoricien boo xam ne xamul lu mu pencam loolu moo waral boo demee ci fiq al fiqul islaam yi gan du jiite juma ndax xamul penc gan du jiite juma ndax xamul penc mi moo tey may wax ne gan mën naa waaraate waaye munta xutba waaw gan mën naa waaraate waaye munta xutba looloo tax xam ngeen ba seigne babakar ci fekke gan nga ñu bëgg ko li xamal daf ko xëc ne ko mukk waaw tabarkàlla xaaj Abdul Aziz Al Amin mo nu koy necc li yàlla na ko yàlla yok wér xam sam penc ci day tax nga bok nga tollok ñoom fréquence xam sam penc yi ci mëna am ak yi ci mënta am ak yi ci xew day tax nga tollok ñoom fréquence ñàkk tollok ñoom fréquence day tax duñ la dégg archivé par archive.com Ziguinchor moo ko doon wax tubarkalla gttt dan la ko yàlla yokk wér <clears throat> kon théorie boobu théorie la koy lal mooy pratique théorie boobu la koy lal mooy pratique ak dox nag wuti ko ak bañ ne mënuma nàngam gis nga lawbe lawbe bu naree dagg garab gu mag xoolal lawbe ni tuutee ci ci par rapport ak garab gi xoolal simmiñ yu mu yor ni tuutee par rapport ak garab gi xoolal njur yor ni tuutee par rapport ak garab gi waaye ndoxam lay duy rek teg ci wetam di gàjji rek jëmale déwén <laughs> bañ ya yàkkamti dara di gajji rek di won bu sonnee ya nan bu ñaxé fompu waaw bu wàccee sangu teud ba suba loolu bu yagge rek garab gi ni ñirim waaw waaw maa la ko wax de waye bu fi nekkoon nan ëw ki lu ko manal garab ga du fu jóg garab ga du fu jóg waaw culture la bu am sala fal yansuru ila taami waaye dégg nga alxuraan fa yanzuril insaanu mimmaa xuliq na nit xool fiñ ko bindee waaw tabarkàlla loolu bu yonjax bi ñëwee nag nga gis penc mi yëpp jiiñ ko yàlla waaw maanaam def say théorie te pratiquer woo naan yàllaa ko dogal naan yàllaa ko dogal déedéet yàlla yàlla dana dogal de waaye daa am yoo xam ne suñ loxo yi zaharal fasaadu fil barri wal baxar bi maa kasabat ay dinaas la ci suñ borom teg suuf yàqu na géej yàqu na yéen ko yàq mu ngoog من أن يكونوا قرباء آخر الزمان وأنه يكفي أن يكونوا على الحق ولو لم يتمكنوا من غلبة الباطل أو تغييره بمعنى لينج تنج متور في نك جلي كفي أي توي رك دوك في جلي جدد لكو في جلي ما ينيب جوك فاسكو في ني جلي مو جوك فيه gis nga fi ne nun ñëpp ay jiiñante accident yi accident yi ci benn bi ñun ñëpp a koy jiiñante waaye gis naa démb tamit loo xam ne loola loola acci égal accident dong la mën a doon waaw ci autoroute à bi boo boo demee ba ñu boole ñaari tali mu nekk benn waaw maanaam boo fayee ba noppi da ngay dem ba ca kanam foofa la liggéey ba yemagum ñu boole na ñaari tëli nag mu nekk benn ñu jëm ca raay ba jéggi ko jëm croisement ba jëm jëm ñaajo léegi dañu am yu ñu samp ci diggante bi pour ne oto def leen ndànk ba àgg ca ñaari tëli ya nit ñi léegi dañuy tollu foofu bu la camion jiitoo da yàkkamti bëgg génn bàyyi ko fi waaw yàkkamti googu la ñaar tolloo démb wuti raay ba ñaari oto yu tolloo di def vitesse yoo xam ne xaw ma fu ñuy mujj waaye noonu moom normalul wàcc tali ba ne ca rang-rang ba kenn ka ne ko dana la double kenn ka nekku ko duma la double ñu wuti raay ba xaw ma fu ñu mujj wallaay ndeysaan romb naa ci koo xam ne keroog day day bër wër rond bi rek morom ja harcelé ko waaw kalafsone ko na gaaw ndax bëggut dugg ci diggante boobu muy topp ci ginnaawam ba ne ko ci ginnaawam xuy mbëkk ko waaye nag daay wàcce nag ne yàllaa ko dogal oto bu amuti lu ci yoonu yàlla waaw oto bu amuti këyit oto bu chauffeur bi koy dawal la muy daw ëpp na ko xamox fenn daan ne yàllaa ko dogal waaw ndax loolu mooy xadarulaa dogalub yàlla yàlla nee na déedéet wax dëgg yàlla da ngeen ma koo jiñ waaye yéen a waaw ma asaabakum musiba fi maa kasabat aydikum wa yaafu an kasiir musiba yi ci penc mi yàlla nee na defuma ci benn <laughs> waxin la de defuma ci benn bi maa kasabat aydi naas waaw saaral fasaadu fil barri wal baxar tabarkàlla yépp yéena nun nag ñu ne ko yewa ñun nag ñu ne ko yow tabarkàlla coolu na kur moo tax foofu itam ndaw li war na fee bàyyi xel bu baax a baax théorie beeg yooyu xaqi alxaqiqa annahum lam yaxusu bi asbaabi taxyiri xata yuwaffiqahum allahu ila taxqiqi mooy bëgg mbir mi jaar ci yoon te jaaroo ko fañ ko wara jaar day tax du jaar ci yoon anna sabab al sabba jitu suma shaqna arda shaqqa top ca fa ambadna fiha habba top ca waaw yalla neena limu li def moy taw lu ñaaral la moy saxal waaw wala bok xoti suuf lu ñettal la moy saxal nga bëgg ne man dana saxlet duma jaar fofu ادم تبارك الله افرايتم ما تمنون افرايتم ما تحرزون افرايتم الماء الذي تشربون افرايتم النار التي تورون نينتي يالا نين دوجي ديفال كين لين يالا نين نينتي دوما سي ديفال كين لين ما تمنون واو yalla moy dima di ñaan dom defe ne lay takal jabar defene ne maa lay joxel may gu njëkk defene ne lay ngorol defe ne dem ci jakk ja mu ne mu go dom amu go dom ku bëgg dom da ngay tak jabar di jox ak ay di ñaan dom na xaaj abdul asis moko dal fi firee rahmatullahi ali waaw nee ku bëgg ku bëgg yàlla nee na du ma ruujal kenn ku bëgg ndox duma ma robina kenn du ma demal kenn SDE di fay ndox yàlla nee duma ko def waaw ku bëgg tàngal ndox yàlla mooy du ma taalal kenn gaz mukk gaz bi jigéen ñi xam nañ yàlla du ko taalal kenn ñoo koy taalal seen bopp waaw dem ci looba maam jaara lobbi ca gaas la bu neuf kilo <laughs> ñëw indi seen kër taaj di togg bu jeex ñu sat siwaat ma wax la ko tey kon jàpp ne yëf yi day soppi ko ni nga ko ni ko théorie te doo ko pratiquer loolu day sunu borom nee na munta nekk inna allaha laa yuxayiru ma bi xawmin xatta yu ma bi anfusihim inna allaha laa yuxayiru ma bi xawmin xataa yuxayiru ma bi anfusihim lay ndeysaan yàlla du changé li naqari ni ci seen biir lu dul nit ñi seen biir ñoo changé la leen naqari changé nii nga xam ne penc mi ku ne dañ naan jikko yi nangam da dimmi nangam lu neex waaye def nangam nangam yàlla ne na yooyu du moom moo koy changé ah bon déedéet ku koy changé mu ne yéen inna allaha laa yuxayiru ma bi xawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim li li li nu neexul ci suñ pénc mi noo koy soppi yàlla soppi ko waaye yàlla du yebale malaaka ne demal duma gaañi déedéet du ko def te doomu aadama dafa bokk ci li ko mën li ko gën a mën a yar même boo dul dóor sanction yi ngui koy tek ci jël ab xaalisam loolu mën na ko yar lool waye suñu penc mi lu way def jënde ko xaaliss xaaliss rek waaw motax yu bare bare bare sopp ko fi jafé yépp sopp ko ndax ndax nguur soosu ndax nguur soosu inna allaha la yuqayyiru ma bi khawmin xataa yu xayiru ma bi anfusihim moo tax kon yooyu day am ay sabab mooy nun ñëpp nooy defaru jëkkalaat toogaay yi penc mi jàpp waaw accident yi bari na lool accident yi bari na lool waaye dawalin yi koo gis xam ne munta ñàkk bari dawalin yi waji da fekk morom ja ca eh, fi ñuy bi fi jéggé ray bi passage à niveau bi je pense que noonu le professeur kee teggi tankam di ko jéggi kee yok tankam pour doubler ko police ba japp ko waaw mu ne ki né fi né ki bu ko police bi jappé bu ko téggone lim ko ra tégg du ko waye fi ne yu mel nonu bo joxe 300 genn ci wala nga joxe 500 dar ci genn ginaaw genn nga ci benen yon man nga defaat ngeen bal ma waaw motax dekk ya nga xamne bo defelul ñu tek la nangami euro 50 euro japp seen jàmbur waaw te lañ la cey tek dem ci keesu bour defar na sel yak mbedd ya waye nun tabarakallah yoy mom rek nun lañ koy doxale di ciow rek nak ñun ñepp dicorek dicorek tebar kalau, nah. tak sunu mbokku euh situng kara, <laughs> ko yalla yok wër kau hmm, memodu situng kara, ko yalla yok di di di laaj nit ni lek lek laaj yu mel nonu lu tak ngin bugus sumbitu dengin jin jënd loolu leen leen di laaj lu tax ngeen bëgg sombi ci du ngeen jënd ceeb lu tax ngeen am ceeb ak sucre ba noppi te mun leen sombi waaw lu tax ngeen di jaawale sombi ak ñànkatan question yu leen di poser ndeysaan question yu neex bay bëgg a dee <laughs> ndax loolu la jàngi woon eh, kon rabtul asbaabi bil musab bil aw musabbibaat euh, dafa am solo ci wàllu pénc mi ndax mooy de plus deux égale quatre archivé par archipo.com mbokk wa bi xassa fi muhima saaba ka muhimati taxyir loolu xaayida la wala règle la boo xam ne bi professeur ji bi bu munta ñàkk la ki ko desal ginnaaw mi ngi desal ginnaaw règle boo xam ne bii munta ñàkk ci pénc mi alquran nu ngi koy waxaat dalika bi anna allaha lam yaku mugayiran nicmatan ancamaha ala qawm xata yuqayiru ma bi anfusihim yàlla nee na xéewal gu ma jox aw nit du ma ko changé lu dul ñoom ci seen bopp ñoo changé luy xéewal fii xéewal gu ma jox nit mooy xam di ko jëfe yàlla mu ne li feeg yéen ngi xam di ko jëfe résultat di am waaye li feeg da di xam di denc ni pay ci meloon rek lay mel allahu akbar ndax anamta alayhim mooy xéewal xéewal nag ga ca jëkk jëkk ci xéewal yi mooy xam jëfe moo tax almaxdubu alayhim mooy ñiy xam te duñ jëfe addaalun mooy ñi bëggut a xam addaalun mooy ñi bëggut a xam waaw ñoom ibnul qayim rahimahullah ñoo koy firee noonu tabarkàlla ak ñoom al imaamul ghazali waaw dalika bi ann allaha lam yaku muxayiran nicmatan ancamaha ala qawm xata yuxayiru ma bi anfusihim li feeg su ngeen xamee jëfee waaye xam tek fële xam-xam ba di jëfe leneen mu ne mu ne pénc mu yàqu rek lay jur waaw jamono ji nit di bëgg permis nga xam ne day passé pour am ko bu ñëwee ci passé code ni muy mel ak bu ñëwee ci circulation ni muy mel ak buy passé conduire ni muy mel su ko continuer woon di ko mel du mbëkk kenn kenn du ko mbëkk Nisan, waaye nëbb say jikko ba am permis sulli jikko ya loolu tam leneen la <laughs> xawma nag nu koy doxale tabarkal waaye daal yàlla nee na li feeg yéen ngi xam di jëfe penc mi jàg su ngeen noppee jëfe seen xam-xam penc mi jagadi bu ngeen ma ko du man jalla jalaluhu wa azza kamalu dalika bi anna allaha lam yakun mukhayiran nicmatan anamaha ala qawm hatta yuxayiru ma bi anfusihim tabarkal xam jëfe ba demee Casamance te sunu mbokk ma la seen biir la ko yàlla yokk wér te soxali daara ja waaw loolu lay doxal ca gaaraasam ba waxoon naa leen ko fi waaw moom kay ku ñëw ca gaaraas ba bu lëggee jot bu bu julli gi jotee julli tisbaar su desee fukki minit ak juróom kenn dootu yor ab kale mukk wala salimu wala yooyu mukk patron bo mën don ñu ne sa oto fofu la ñu ne ñuk sa oto ba nga ne lu xew ñu ne patron be nu woo patron bi ban patron ban hayya ala salam nga seen <laughs> ben ben benn apprenti ca ak moy noddu ben apprenti ca gaaya liqaam wala boog liqaam ben apprenti ca gaay jiite jullit mbolo ca barab ba tabarkal waaw yoy li fek li fek changer wuñu ko penc mi jag buñ ko changé mu yàqu mooy xam jëfe ala kulli xaal beneen tombe ngoog professeur muy muy deuxième bi tabarkàlla troisième bi ci maladie yooyu wala doo daan yooyu ci kanam xale yi mooy xalabatu tatarruf alal ictidaal tatarruf mooy ëppal ictidaal mooy yem mooy équilibre tatarruf mooy ëpp loolu moom tam mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi lëjël tatarruf lislaam bëggu ko ictidaal la bëgg ah tey nag tey nag al shaxsiya al islaamiya daf ci am lu ci feeñ lu tatarruf wa adamul ictidaal mooy ëpp ëpp na lool walla bokk ëpp na ci barab yu bari araamal lu araamut waaw araamal lu araamut daganal lu daganut génne ci diine ji ku ci bokk dugal ci ku ci bokkut tabarkàlla ak yi mel noonu ak fekk loo xam ne du mun kër nga def ko mun kër ak yooyu demee teg leen seen baram foofu ñaan sunu baram dund wa ëllëg nu wéyal ko incha allah di jéglu soxna yépp di jéglu doomi soxna yi di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci réew yi ko wër di ñaan la xale yépp jeunes yi góor ak jigéen ñu toll ci 15 ans te amaguñ 55 cinq tabarakallahu sunu borom yee nangu nanguwaat seen xel yi nga xam ne moom la seytaane sàcc ci delloosi leen ko jërë ngeen jëf ak seen for yëkkatee jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fànjal xibaar tubaab firiñ fànjal leen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu mbokk yi di ànd ak ñun ci jataay bi di arrixaab ri 19 angal beles jaañ yàlla yàlla sàmm leen sàmm nu yal na yàlla aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu